wax naa ko mani façon sëy bi am Sénégal ci àddina Sénégal rek la am yow miy sëy yaay sonn yaay togg yaay bale yaay raxas yow lañuy xas yow la ñuy metital njëkke bu ne ci kër gi tëw sëy lu muy jot dóor ko sa kaw goro bu bon lu mu jot dóor ko sa kaw te doo sañ a wax soo waxee ñun dangaa bon mais loolu du lislaam te loolu it du sëy ndax yàlla dafa wax ni ñaar laa leen boole yow ku góor ki ak yow ku jigéen ki mu ni mawadda ak raxma mawadda mooy cofeel bi war a am sa digganteeg moom ndax xale bi bu xasee ba génn kër baayam yow yaa yor sécurité noo seulement waroo kaa toroxal waaye warootoo waroo nangu it kenn ku ko toroxal yërmande gi it da ko war a am ci moom kon bu ko defee loolu lu jar bàyyi xel la nit la yàlla teral walaqad karam naa bani aadama wa xamalnaahum fil barri wal baxri yàlla moo teral doomu aadama waxuma soxna si nga jël takk ko de ngir ngeen am njaboot waaye doomu aadama rek même ku ne ci mbedd mi taxamoo ko ak ku munti doon di doomu aadama rek doo kaa toroxal masamaa ne ki nga yàlla booleel muy sa soxna bari na jigéen ñoo xam ni seen àdduna yàqu na te sëy ko yàq bari na jigéen ñoo xam ni am nañu feebar yu dootul wérati mukk te sëy moo ko waral bari na jigéen ñoo xam ni am nañu ay goitre ak feebaru stress yoo xam ne mu ngi leen di bëgg a yóbbu àllaaxira te sëy rek ko waral te sëy nag bañ koy wax nag loolu taxul kon yow mi nga xam ni yaay góor loo gën a mën a yokk yërmande sa soxna na ko def yow mi nga xam ni yaay góor loo gën a mën a tere sa jabar na ko def waaye dóor toroxal xas saaga wax lu ñaaw loo jot ci lu bon xëpp ko ko jiiñ ko lu bon ah tabaarakallaahu yooyu yëpp nañ ko bàyyi xel moo doon waxtaan bi ñoon yeggale ci diggante góor ak jigéen rawatina si ñaari sëy kon fa tabaarakallaahu ñu ngi xaar ne ni waxtaan yi di ñëw ci kanam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu